da ngeen di déglu kay mais doo leen bàyyi ji mu wax Hmm? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, votre réaction, maître, votre réaction, maître, votre réaction. Maître, s'il vous plaît, maître. Maître, s'il vous plaît. Wow, donc, maître, vous pouvez. Maître, maître, maître. Maître, ici. Maître, vous pouvez. Maître, votre réaction qui est importante. Maître, maître. maître maître maître par là maître. maître maître. maître de l'autre côté maître. maître de l'autre côté. et eh, maître. Adil. Maître, maître, maître, maître. Maintenant, vous nous mettez, s'il vous plaît. Allez, allez. Allez, allez. Allez. Allez. Allez. Gabriel. Gabriel, un mot. Gabriel, un mot. Gabriel. Gabriel. Gabriel. Deux mots, s'il vous plaît. Deux mots, deux mots. Adi, Adi, Adi, Adi, Adi. Ça, ça, ça, ça qui vient. Euh, gis ngeen ko mbokk internet yi Adji Sarr mi ngi noonu di dugaat ak ki nga xam ne moom moo di ci euh, tribunal bi je sais pas. Euh, waaye ba leen kii mu téye micro yi waaye nag. Eh. c'est ce que je voulais dire et c'est ce que je veux. Moi, je ne suis pas de ceux qui violent les Maître, de ce côté-là.

en réalité confrontation amu fa parce que euh, Ousmane Sonko nanguwul woon répondre ci question procureur de la République nanguwul répondre aussi ci question avocat Adji Sarr yi c'est dans ces conditions que l'audience s'est déroulée donc confrontation daal li tax ñuy wax confrontation amu fa donc nag man loolu rek laa leen mën a wax te man bokkuma ci ñi nga xamante ni dañuy taxaw ci mbedd mi di violer le secret de la ñi doon wax ñi doon wax naan procès verbal yëpp du dëgg ñu doon wax ci mbedd mi yëpp dara Let's say, let's say, let's say.